kon gis ngeen Mariam mi ngi noonu kii nag euh, mooy taawu Imran maamam la fekk si noonu di ko indil ab dundam waaye góor gi nag ñu bàyyi xel ni moom sëtub Muusa sëtub Laawi la Laawi mooy ki gënoon ci bàyyi doomu bàyyi Yuusuf yi man maay Mariam yow maam Mariam salaaman yaa bunayati yàlla na jàmm wàcc yow lii ndox la def lii mooy mburu mi ma la indil ñu ko defaree bele ndeke mbir yi ndeke sa baay ndeke soxna si mu ngi ci jàmm waaye am na gan gu bees am nañ gan gu bees gan gu bees da ngeen ko am aka neexoon muy saa baay waay muy gan gi ndax baayam dañ ko yóbbu suxra xanaa mbirul seen baay amu leen xibaar ci moom ah kay kon ban gan moo leen ñëwal bu dul seen baay ah am naa rakk day Haaroon am na rakk sa sa ba say doom ja sa sët ba am na doom yu kaabit ëmb bi dafa mat waaw waaw mat na de kañ la kañ la am doom bii ci guddi la am doom man xam naa ni Firawna day dafa digle képp ku judd ca di góor ñu rey la bu dee jigéen ñu bàyyi mu dund information boobu jot naa ko maam maa ngi lay waatal ci yàlla ni xale bii doog judd gis naa ci ay kéemtaan yu rëy bi ko saa yaay ëmbeeg léegi mbégte yi day tegaloo rek di ñëw mbégte yi day tegaloo di ñëw xol xol ba daa fees dell ak teraanga saa yaay ba sama baay sax nam ko gisatuwul amatul problème bi ci guddi day saa maam ba ba jigéen ji rew la ñëwee kër ga daal ak sécurité wàcc na fa akuk dal xale bi daa nelaw nelaw yu dal moom Haroun waaye nag euh, yërmande àgg na ca moom ba xale ba juddoo nag leer gi dafa leer naññ ci saa kanami bàyyi saa kanami yaay ba ma gisee xale ba nag lépp luy ta jafe-jafe dañ na ci man mbëggeel dugg na ci sama xol bi bàyyi duma la maam duma la fen day ah kër ga daa feesoon dell ay parfon bu neex bépp parfum àdduna rek parfum bi ci bi xale bi juddoo moo dàq man day duma sikki sàkk ci mbir yi nii bu ñu ah xale bi de bu dee euh, wóor na ma ni bu bu ko firawna reyul dana bokk ci doom yi gën ci sëti firaw ci ibrahim yi sama maam sama yaay daal nee na sama yaay nee na daa mel ni ab yonent la jur jamo yonent bi mujj ñëw ci jamono daa mel ni moom la jur de déedéet déedéet moom mu jurul nag yonent bu mujj moom sun doom ji daal li ma la ci wax bu juddoo moom dina nekk yonent bu màgg màgg ñeel waa banu Israil nag waaye ne du nekk yonent bu mujj ma waaye yonent bu mujj ci jamono moom kooku moom yonent boo xam ne la yàlla doo ko yónni ci xeet yëpp àdduna bépp ci ñu weex ñaag ñu ñuul ña ñu jaune ñaag ñu xonq ñaag ñëpp kooku du kii jàng naa ci téere ibrahim ya ak ismail ak isxaaq ak yaqub ak yusuf ni yonent bi mujjee ñëw ñi mi ngi bàyyikoo ci sëti ismail ya kon du kii kon digal nañu ñu julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam ca juddoogul loolu xale boobu ju yonent boobu nag ma nga ci kump ak yàlla allahu akbar kon am na ku ñu junj yow yàlla ju mag ji am na ay gan yu la ñëwal dey kon wax nañu si signaalu yonent bi waaj juddu waaye bokkut ak ku mu jukka ñaar ñiy rewle ñiy xool mbiru jigéen yi ñoom ñëw nañu sage-femme yi ñëw nañu ñooy rewle jigéen ñi ñi yor visite yu jigéen ñëpp ñëw nañu muy ñaari soxna yooyu muy sofra ak foi ñu ngi noonu nag ñii ñooy sage-femme yi nga xam ne ñoom la état jël ñooy sage-femme d'État yi ñooy nag contrôler jigéen ñi kuy juddu di góor ñu rey bu dee jigéen yëkkati ci ndigalu seen yàlla ju mag wax leen yéen ñaar ku nekk yaay kan présenté wu leen aywa man sab jaam bu jigéen la maay Soufra man maay sa jàmbu jigéen bu ñuy wax Fowa man tamit yéen ñaari jigéen ñi yéen dañ leen di tuumaal wax yu bi day wax ni yéen ñaar da a sàggan ci recensement bi ngeen di def ci jigéen ñi ak ak jigéen ñi ni war a juddoo da ngeen cee sàggan yéen sages-femmes yi Firawna mu màgg mi yow yàlla ju sax ji jigéen ñu ibraneel yi ñooñu ay kaw kaw lañu ci cosu dañoo dëgër ñoom dañoo dëgër ak kii bokkuñoo waa misra yii ñoo leen gën a dëgër foofu ñoom balaa ngay ñëw di leen seet si sax ñu am doom ñoom mën nañoo réglé seen loolu tax loolu tax bu ñu leen di bëgg recensé du ñu leen mën recensé danañ fekk ñu bëri am doom ba pare ñoom ñooy ibru yi mooy ñi bàyyi ko ci euh, cosaan yi mooy ñu njëkk ña ñoo ñu tudd leen al ibriyun ñoon waa banu israil la ci jublu mooy mbokk yusuf yi mooy doomi mbokk yusuf yi ñooñu la ci ñoo fi des ci misra ci mbokk ci peuple yëpp lañ bokk dañoo bari fii ñoo ñu lay waxal rek kon seen cosaan ak kaw-kaw la bay ak sàmm lañ xam moo tax ñu am kàttan balaa ñuy jigéen ñi ñëw di leen visite fekk ñoom am nañ doom ndax Euh, dañoo am force bokku ñu jigéen ñi xam dañoo néew doole moo tax léegi nag dañ leen di rëcc ci bu ñu leen di saytu ci seen liste ñoom yenn saa duñ ci ne ñaar ñii duma sukkandiku ci ñoom ñaar moom mënuma sukkandiku ci ñoom ñaar bindal samay digal ci gémmiñu faam Haamaan mii lu mu wax def leen ko kon bépp góor bu judd nekk góor ci waa Ibrani yaayam dana ko sànneeg baayam ku juddu di góor rek jox leen ñu ko ñu rey ko bu jee jigéen ñi moom dañ leen bàyyi ñu dund moom ku deful lii buur bi digle nag dañ lee rey jeex na gi ku ci gis ñu rey sa sa doom ci sa kanam nag moom lañ la la nga bëgg lañ la buur bëgg di nga ko def mbokk yi xool leen soxna si kanam nga nam leere kii mooy yukaabit mooy yàlla yaay yont yàlla Moussa kon xale bi judd na Seydina Moussa judd na ndaale ak leer waaye dégg ngeen la Mariam waxoon mag ja néeg bi daal leer nañ parfum bi xeeñ xunn kenn xamul parfum ba jóge mu nekk bichara nekk mbégte wane ni ku juddu dey ca la ca gën a yéeme dafa juddu ci jamono joo xam ni ndigal lëwéy ci état jóge ca état mooy ku juddu di góor ray leen ko ku judd jigéen nañ ko bàyyi mu dund kon jamono ji Firawna war a rayee jamono jooju la Moussa juddoo léegi nañu xool ginnaaw juddu xale bi nag ndax danañ ko rey walla déet kii mooy Yukaabin mooy yaay yonte yàlla Moussa borom këram mooy Imran kon da ngay wax Moussa ibnu Imran ibnu Yasxar Yasxar moom boo ko toppee sët ci laaw yi laaw yi doomu Yaaqub Yaaqub Isxaaq moo ko jur Isxaaq Ibrahim moo ko jur alayhi salaam kon Moussa mi sët la ci yonte yàlla Yuusuf waaye tamit sët la ci yonte yàlla euh, Ibrahim alayhi salaam kon léegi nag jafe-jafe bi am mooy soxna si am na doom góor la la buur tëral mooy ku juddu di góor nañ la rey waaye amaana la ca nekk la ca neer a nekk sens mooy duggul ci recensement bi nga xam ni état digle woon nañu ñu la ñu recensé ko jigéen ñi waaw beneen ba ña nga xam ni tàgg jëloon nañ leen buur jëloon nañ leen yóbbu leen ca àll ba yóbbu leen suxra lu jigéen lu lu ñuul lañuy sol mel ni jigéen ñoo xam ni dañuy nekk ci téñ ñi waaye coleen wu yaatu ca yiw soxna si kon jafe-jafe mooy lan ah ndeysaan moo tax alquran wax ni ah, إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون waaw léegi nag la ca topp mooy wa awxaynaa ilaa ummi Muusaa dama koy bàyyi tuuti mu ñëw incha allah danañu dab ma ngay ñaan boroom yow sama boroom maa ngi lay ñaan nga fegal ma lii ma yitteel li nga xam ni sa mbiri bopp la nga téyel ma lépp yàlla yàlla yoral sama lépp yàlla bu ma bàyyeek sama bopp tarfatal ayni wala lu gën a néew loolu bu ma ko bàyyee ñaan googu jël leen ko soo ma bàyyeeg sama bopp yow yàlla kon di nga ma bàyyeek néew doole ndax mënalu ma sama bopp dara lépp dem na lu ma mënoon dimbali dem na amatuma ku ma dimbali ko lépp sori na ma lépp lu ma daan yenu daan ma yóbbaale géew sori na képp ku ma daan wéeru ci moom rek amatul ku dul yow yàlla subhanahu wa yàlla suturaal ma mag saa doom ji ak samay doom yàlla méngoo ñu yoral suñu lépp comme ni nga ko yorale sa nit ñu baax ñi allahu akbar ah mbokk yi ñaan a moo tax ñaan yi de leen ko jël dinaa leen ko seppil benn par benn waaye nag problème am na mooy police ñëw na ñu ngi ci buntu kër gi ndax dañoo nattoon ni jigéen ñu bari war nañoo am doom ci jamono ji léegi ñu xool lan moo cay topp kon soxna si ñaan bi mu ñaan nga xam ne déggoo làmmiñam wax waaye xaatira la doon demee ci fikir la doon ñaane yàlla ca mooy ñaan gu nekk ci biir xol min qalbin xaalis ila rahmati rabbil alamin foofu la doon ñaane kooku nag maqaama bu kawe la waaye lam doon ñaan it danañ ko yaxal bind ko ba ngeen ñëwee Thiénaba TV ñu may leen ko ah. noonu wax yu ba ñëw na ñi ngi tàmbalee tur yàlla mi boroom yërmande àdduna ak àllaaxira firawna ku bew la ci kaw suuf ñépp mu def leen ay chia ay mbo ay kuréel day néewal doole ak kuréel ci ñoom di rey seen doom yu góor ya di bàyyil di bàyyi jigéen ña moom day yàqkat bu mag la moom Firawna cey aaya bango ñu bëgg nag dimbali ci ñi nga xam ne dañoo néew doole ci kaw suuf ñu def leen ñu nar a nekk ay kilifa waaye ñu def leen ñu nar a donn Égypte ak li ko wër ak nubuwa ga ñu dëkk ñu may leen kàttan dooreel leen ci kaw suuf bu ko defee ñu wan na ak Haamaan ak seeni soldaar kàttanu yàlla te mooy la nga xam ne moom lañ doon moytu mooy nguur gu foq lañ doon moytu yàlla mu ni danaa leen ko won tey kon yàlla dogal na xale bi nar a folli Firawna juddu na ci jamono ji firawna dogalee ni ku juddu di góor nañ ko rey ñu xool ndax dogale firawna boobu mooy wér walla déet aaya ba wàcc na gis nga kon yàlla wane na ni firawna daal daa bew ma ngay néewal doole euh, égyptiens yi ma wax yu ci yaayi Muusa ni ko xale bi na ko nàmpal liir bi na ko nàmpal ba soo ragalee ci moom nag demal sànnil ma ko ca géej ga bul jàq bul jaaxle inna raaduhu ilayki wa jaailuhu min almursalin wér na ni danaa la ko delloo ci dinaa ko yónni mu nekk bi yonent allahu akbar inna raaduhu ilayki wa jaailuhu min almursalin ndeysaan loolu nag ilham la bu yàlla defal soxna si du ab yonent waaye nitu yàlla bu jigéen yàlla dana ko defal ilham mu ñaan waa woote gi may dégg lan la woote gii may dégg mu fees sama xol gan woote la lii wax yu bu jógee ci yàlla la bu dëggu la wala ndax ilham la bu ma yàllay xamal mu sell bàyyi ko ci yàlla wala mbir wa xanaa kay wërta nekk mbirum seytaane aha kay man lu wér laa yëg li ma dégg sama xol oh, loolu kàddug yàlla la allahu akbar kàddug yàlla la de loolu mbiru seytaan amul wenn yoon wu mu mën a jaar rëcc amul wu ñu war a jaar ak suñu doom yi rëcc loolul topp ndigal yàlla bii mu joxe rek mooy sànni ko ca ndox ma foofu rek lañ mën a jaar ba rëcc soo ragalee nag wax yi baa ngay ñëwaat soo ragalee sànni ko ca géej ga soo ragalee xale bàkk naa yàlla kañ naa ko subhaanallah bàkk naa yàlla kañ naa ko su ma ragalee xale kon naa ko sànni ca géej gi loolu lañ ma wax ah baa loolu wóor na kon la mu yëg kon am na genn kàddu gi wax ak moom ci suuf moom doo ngoy dégg na ay waaye du ba li ma doon ragal ci Firawna du am waaye day ragal ga ma ragal Firawna daa mel ragal gi ma ragal doom ji man ma sànnloo ci ndox mi moo gën a tarde bakk naa yàlla kañ naa ko yàlla sell na sori ne lépp luy ñaawteef bàkk naa yàlla mi bind ak rëcc yàlla mi musal nit ci ak al alkaade bàkk naa yàlla kañ naa ko cey allahu akbar déedéet kay duma def loolu déedéet bu ma sikki sàkk ci kàddug yàlla du sikki sàkk mukk ci kàddu yàlla li yàlla wax dong lay def sama ndoom si danaa ko sànni ca ndox ma niñ ma ko digale yaay lu xew xale bi déggu lu xew <laughs> ndax lay wax ak soxna si moom yëgu ndax damaa dégg li ngay wax li ma dégg nga wax lu mu yaay dangay sànni tànk bii ca ndox ma ndax da déglu ndigalu firawna aha kay déedéet du loolu de bàyyil ndigalu yàlla lay topp waaye topp ndigalu firawna yàlla moo wax yu ci man ni naa ko nàmpal ba mu suur ma wut fu ma ko teg sànni ko ca ndox ma yàlla dig na ma ne it ni dana ko delloo si ci man jëmmi jamono fasante naa moom kóllëre fakk ba yàlla di ko def ab yonent kon noonu laay def yaay booy loolu da ko dégg mu jóge ci kàddu yàlla aha kay dégg naa ko de aha kay loolu laa dégg de dig na ma it ni ma dina ko delloo si ci man fasante naa kóllëre ni dina ko def mu bokk ca yonent yu mag ya moom sama doom ji allahu akbar bishaara ilaahi saa doom wutal ma benn kees danga may wutal benn kees koo xam dañ dañ koo muur biir ak biti yëpp ñu muur ko aar ko waaye bu ko nga xam ni nañ ko teg foo xam ne ndox mi du ci mën a dugg ci moom yaay loolu na def sa doom ji Maryam jaayante naag yàlla maa ngi lay ñaan bu ma delloo ginnaaw ci li ma yàlla digal fu ma delloo ginnaaw mukk wenn yoon mooy yoon woo ñuy rëccee mooy yoon woowu lu li ma dégg yàlla wax ma ko loolu rek mooy mujjuwaay bi ma ngoog day gis nga xool leen pale baa ngoog Firawna gis nga garde kooram yaa ngi noonu bu ñu xëyee daal di xool pale ba la ko wër ndax amul luy poroxlu amul lu jaar fu mu wërta jaar ñu ngi noonu bu ñu xëyee fajar teel ñu saytu ko ay soldaar lañu bu ko defee ah lañ ko diggal daal mooy nanga ko nàmpal ba mu suur soo noppee nga sànni ko ci wut foo ko def teg ko ci ndox mi rek yàlla nee na ko inna raduhu ilayka wa jaa'iluhu min al mursalin danaa ko def ab euh, yonent danaa la ko delloo ci danaa ko def ab waaye nag Mariam mi ngi def étude de yaay jaa ngi noonu léegi ñu ngi étudier fan lañ ko war a teg ci kees gi pare na léegi dex gaa ngi noonu ci lañ ko war a teg nag ne ko suñu borom digale ca déglu ko nag bu ko defee nag ah la ca des mooy est-ce que xam nañ fa muy nar a yi xamuñu waaye ñi ngi làqatu soldaar yi ndax bañ euh, euh, ñu xam la ca xew ak yépp waaye nag wutal nañ ko foo xam daal ndox mi du mën a dugg ci biir waaw ida xifta alayhi euh, falqihi fi lyam loolu mooy ndigal la mu jot waaye ña ngay saytu yépp rek léegi nag allahu akbar ndax nan lay tàggoog xale bi loolu mooy problème bi nan lay tàggook liir bi jël na liir ba def na ko ca kees fas yéene nag teg ko ca ndox ma bàyyi ko mu dem waaye nag dégg na kàddu ya mooy inna raaduhu ilayki wa jaa'iluhu min al mursalin wér na ni danaa ko danaa la ko delloo ci danaa ko def ab yonent kon loolu waadun min allah la ca ñoom ci njabootug yonent lañ bokk kon ñoom duñu sikk sàkk ci mbiru yàlla donte tàqalikoog sa doom donte jëfandikul yàlla lu metti la natt bu rëy la waaye yàlla foofu lay jaare jaamam yi yenn saa yi mu tegal la natt boo xam ni pour nattaale sa ngëm boo gëmul rek doo ci génn waaye baat bu mbokk yi bàyyi leen ko xel dana waral kuréeral mbir boo ko waxee mu ñëwaat incha allahu taala inna raduhu ilayki wa jaa'iluhu min al mursalin kon gis nga teg na ko ca ndox ma ma nga noonu nag waaye la ca des mooy rôle ba ca rakk ja war a def waaw cee tet tet ndeysaan dégg nga day kon wala taxaafi wala taxzani inna raduhu ilayka wa jaa'iluhu min almursalin léegi nag la ca topp mooy faltaqatahu alu firawna li yakuna lahum aduwan wa xadana inna firawna wa haamaana wa junuudahumaa kaanu xaatiin kàddu gaa ngay ñëwaat ñi ngi tàmbalee tur yàlla borom yërmande àddina ak àllaaxira waaye xolub moomu yaayu Moussa mujj na fee wéet lool bu ko nëbbul woon sax xawoon na sax di ko nëbb bu ñu téewul woon xolam bi ngir yeewu xolam ci ngëm yàlla kon day mën naa mën naa mën naa sàggan gis nga bi yeneen kàddoo ngoog wa asbaha um fuwaadi ummu musa waaye soxna saa ngay répété baat ba rek yàgg-yàgg danaa la delloo sa doom ji nga teg ci ndox mi yàgg-yàgg danaa la delloo sa doom ji naam dëgg la yër na noonu lañ ma ko digale woon day noonu it lañ ma ko déggee woon noonu laa dégg kàddu gi yàlla gi mu dugg ci sab xol ma ngi koy wax lii ma ma koy wax mi ngi naa man jàppal ni dinaa la ko delloo te dinaa ko def mu bokk ci ñi yàlla yónni allahu akbar ndeysaan seet tet tet wa qaalat li uxtihi xusihi fa basurat bihi an wa hum la yashcuruun waaw waaw wa asbaxa fuaadu muusa faariga yàlla mu ni xolub yaay musaa ba mujj na wéet lool féex ah, wéet lool ah bu xawul xawul xawoon na sax ndax dégg nga yow sama doom man xaw ma fu saa rakk ji jëm gaawal topp ci tefes gi gaawal topp ci tefes gi toppal jeexitu xale bi bu ko bàyyi mu say gët topp ko rek xam fi muy jaar toppal gaaw dawal topp ca gaaw. fan la xal mbiru mbiru liir bi di mujjee moytul ñu gis la nag moo moytul gaa yi gis la de ñi la jege sax sunu mbokk sax bu ñu la yëg xoolal xale bi ca fexeel bu la kenn yëg nag dawal topp ca ndeysaan xusiihi waaw ma ngoog dey gis nga nag a ah, am na ñu ko for nag ñu ko for nag ah, gis nga ruwayda moom moo taxaw sol lu lu lu eh, lu rose li moom lañuy ñuy jox xale bi moom ci eh, ñi jigee jabaru na ci la bokk waaw ruwayda ak kii gis nga kii mooy soxna firawna na ah, borom kilif kilifa gi yow mi nga xam ni yaay soxna firawna lu xew loo gàddu nii benn peñe boo xam ne dañ koo muur fan la jóge ci ndox mi lañ ko jëlee lu ci nekk xale bu rafet tout tànk liir bu rafet moo ci nekk xool ko góor la nag de allahu akbar xool leen ba mu ko tijjee leer ga tàppee ca kanam ga ah, dalal ak jàmm waay xale bi day day day daa rafet mi ngi nelaw ba mel ni or xool ni mu rafete waa man bankadoo lañ ma indil nii jóge ci ndox mi waay ndox mu garab saa kon loolooy Muusa tur waa ngoog allahu akbar jox na ko tur kon e, soxna si Firawna saa ngi noonu ma ngoog wa Maryama ibnata e, ma ngoog imraata Firawn moo nekk nii danaa leen wax turam léegi allah waaye gis ngeen euh, mbokki Firawna yaa ngi noonu ñu ngi lay ñaanal bisu tedd ki borom état bi sama frère sama seen sama frère ñu ngi lay dalal sama Nafiya la àndal ak doomam Aanu am la àndal. bu yàgg ba tey ñëwoo seet si ma yow Naafiya xanaa sa doom ji moo yéem Firawna aanoo ah, ngoog ka des moom moom ne buur bi nee na ko bu ko gisatee dana ko rey dalalal sa xel ka ca des nu mu tudd sinon la tudd waaye nag tuskare ñeel na ko moom xelam dafa yàqu dafa dof léegi dafa gëm pas-pasu ñu dof ña mooy mbokki yusuf ya aanu nag moom même xale bu baax la bu bokk ci njaboot gi moom day moom xam-xam yu bari am na ko waaw moom tamit dañuy dañuy diisoog moom ci lu bare bari xale bii nag teel naa ñëw ca pale ba àgg na ca firaaw na mu boole ko ca xale yu góor ya muy diisool bis mu sedd bi ah suba su leer si maa ngi leen di ñaanal ngeen am réussir ki mooy première dame seen xun bàyyi ma ma gis la dama laa soxla damaa bëgg a wéet ak yow am lu ma waxtaan ak yow seen xol ngeen bàyyi ko xel nag ci nee na ko bu ci kanamee nga ñëw ndax dama laa soxla dafa am lu ñu war a waxtaanee. ni bi xuur ñëwal. ana xale bi. mi ngi fii ñu teg ci wetu jaam yu jigéen yi ah waaye daal ñu ngi koy jéem a nàmpal waaye ne nangut a nàmp ah koy bëgg bàyyi mu dee ci xiif leen keneen ku ko nàmpal soxna si ku doomam de kii kii doo ko am doom ni sax nangu bi mu ko joxe yoon daa bañ ay waay xale bi nangut nàmp de waaye Mariam dégg na ko ñu déglu fii nag Mariam kon topp na leen ba xam ni kon ci pale bi la ñëw waaye ñii am nañu tiit ndax est-ce que Firawna du ko rey ndax lam tëral mooy bu dee ku juddu di góor nañu rey bu dee jigéen ñu bàyyi waaye comme que mi ngi ci loxoy première dame moom amaana mu mucc ay waay xale bi dinañ ko jël waay sama xol bi daal mi ngi yëngatu ngir tiit gu ma am ci yow yàlla yàlla na nga wóot yàlla nanga nga wattu liir bi ñaan gaa ngoog de waaw kii nag ñu bàyyi ko xel soxna Firawna eh, ma ngoog man ixtaara daara qabla al jaar wa man ixtaara al jaara qabla al daar rabbi ibni li indaka baytan fi l janna wa najjini min firawna wa amali wa najjini min al qawmi zalimin moom nag daa lii lan la wajadnaahu bayna al-maa'i gone guñ fekk ci ndox meeg garab yi lañu xoolal ni mu rafetee rek ndox mooy mu garab mooy sa tuddee naa ko Moussa waaye même daa mel ni kuy kuy changer couleur waaye xale jox nañ ko jox nàmpalkat yi kuñ ko jox rek mu bañ du ko nàmpal hada min loolu kii ci abriyin la bokk xamee naa ko xamee naa deretam li yàlla ji wax ak man du ma rëcc de haamun xam naa baax kii foofu la bokk xale yi nga digle ñu rey leen kii ci la bokk mun ko déet bul rey ay waaye yow mi dal sama xel bul rey bu leen ko rey amaana mu jëriñu wala ñu jàppe ko doom ndax maag yow bi ñu sëyee ba léegi amuñu doom bàyyil ma jël ko muy sama doom ma doom ma def ko fils adoptif xamaan loo wax ci loolu madama qad xarama almaradi ala nafsi comme que ñi koy nàmpal bañ na ni duñ ko nàmpal kon amaana moom daa bëgg liir bee bëgg a xaru rek comme que nanguut a nàmpal kenn moom daa bëgg a xaru liir bi kon ka yow jëru nga ci sonn <laughs> dégg nga fi xaamaan li mu joxe kii day sa doomu bàyyi teex la dafay ñëw di ñaan njekk pour sa mbokk moomu sinon mi nga xam ne maa ngi ñaan nga bàyyi seen xur ma waxtaan ak moom waaw nag ma kon nag ma xaar fii ba kere ma lay woowaat yow seen xut ah seen xut nag bàyyi leen ko xel mook soxna si bokk pas-pas ñu bàyyi ko xel léegi nag kon ah, soxna si ñaan na pour ñu bàyyee ko ko buñ ko rey ah, dégg ngeen la ca xaamaan wax mu ni ah comme que bañ naa nàmp kat mooy daana raxaru li ma lay bëgg wax secret la bëgguma ko bëgguma ko sax waxe fii xaamaan ak i bëyam man sax wóoluma ko wóoluma xamande déglu leen fii nag ah Mariam dugg si na comme que nee nañu bëgguñu ah, xale bu du nàmp kenn mu ni wuti leen keneen fekk Mariam ma ngi ci roq ba gis na ñëw na kii mooy kan. benn boobu ci benn xale bu jigéen la côté bii la dëkk dañuy gis ñuy wut ku nàmpal xale bi waaw ñu mu daal di wax ak ñun xam naa dafa bëgg am nañu pexe. yow xale bu jigéen bi loolu tax a jóg ndax duma leen diggal ñoo xam ni nañ ko mën a yor dinañ ko mën a taxawu dinañ ko mën a nàmpal lu la xamal loolu ndax danga nga xam ay mbokkam déedéet kon ku la xamal ni mën nañ koo yor mën nañ koo taxawu ndax ñoom dañuy dox ci ndigalu buur bi ci mën nañu nàmpal xale yu ndaw yi bu dee wax nga dëgg rek tegtal ma njaboot goo xam danañ ko mën a nàmpal ndax xale bi daa xiif daa mar yow boo ko ci ibrani yi ibrani yi ah kay ci laa bokk de kon kan moo koy nàmpal ci yéen saa yaay mën na koo nàmpal seet tëdd am na soow waaw waaw waaw sama doom sama mag ji sama sama rakk bi moom mi ngi nàmp mën na ko boole nàmpal ko boo jamono jooju nag dafa am doom fekk diglewuñ woon ñu rey kenn kon dawal gaaw nga wóor ko allahu akbar ah jeex na ma ngoog kon la yàlla digge woon am na bëgg nañu def tamkiin ci xale boobu léegi nag ah, nee na yukaabit yaay Muusa nee na mag ji muy Maryam toppal tànki xale bi toppal kees googu ba xam fan lay teere ji waaye kees ga teere ji na ca kër buur buur ba digle woon nii bu juri di góor rey leen bu dee jigéen bàyyi leen mu dund yàlla dogal na it fekk na fa soxna na ah, nga xam ni jamono yi waxtu yoor yoor da daan féexlu ndeysaan da daan féexlu foofu ñëw na nag ñu xool ko mu jóge ci ndox ndox moo xam ni ay garab tiim muy muu ak chaa muu mooy ndox chaa mooy garab mu ni kon jabaru na bi nii kon tuddee naa ko muusa loolooy jóge ca tur wa firawna bi mu ñëwee xool na ko xaamaan ni ko kii dey boo gisee deretam rek xam ni ca laaw yi nii la bokk eh, ña nga digle woon pour ñu rey leen fa la bokk kon nañ ko daal di rey soxna si ni ko may ma ko rek bu ko rey nañ ko jàppe doom wala ñu jàppe ko ma ngoog euh, amaana ëllëg mu jariñ ñu ndax maa yàgg nañu ci amuñu doom kon nañ ko jàppe suñu doom amaana mu jëriñu ëllëg la Haamaan wax bañ ko laajee xalaat mooy comme que xale bi nee na du nàmp bëggul nàmp kon xale bee nar a xaru rek kon nañ ko bàyyi rek yow kay mooy moog la nga waxoon benn la rek moog rey gi benn la waaye nag euh, fekk mariyam rakk ji mag ji topp na tànk yi ba xam fi mu nekk déglu leen ba ñu gisee ni kéemtaan nga ci njëkk a feeñ mooy xale bi nangu te nàmp wenn ween Mariama ñëw ne leen ni leen ndax duma leen digal njaboot goo xam danañ ko mën a nàmpal danañ ko mën a yor nañ ko mën a toppatoo comme que soxna dafa am yërmande nee na kon nag jëlal gaaw demal woo leen gaaw ñu ñëw nàmpal ko kon yaay yaay boppam moo nar a ñëw jëlaat ko nàmpalaat ko bu ko defee mu nekk ci sécurité bi gën a wóor ndax léegi day nekk sous couverture ak sous surveillance de l' day mel ni doomu buur bi la ñu joxe ko dénkaane ko mu nekkaat ci loxo yaayam ñu koy surveiller di ko xool muy di jox yaay ji dund gu mat di jox yaay ji lekk yu baax nga xam ne amu ko woon donc loolu mooy première kéemtaan bi feeñ ci xale bi mu juddoo la yaay ja doon ragal waaye baat ba mu doon baamu inna radduhu ilayka wa jaa'iluhu min al mursalin danaa la ko delloo ci ko defab yonent kon mi ngi commencé feeñ xale bi nangu te nàmp na léegi nag delloo nañ ko kon Mariam dana ko jël yóbbu ko yaayam dana ko jëlaat nàmpalaat ko boo ko defee muy la nga xamee nii étape bu yéeme la ci film bi kon xale ba juddu na léegi nag mi ngi fa yéene nekk nag ci loxoy buur waaye nekk dellu ci loxoy yaayam yaayam yoraat ko nag kon ni nga xamee ni noonu la ko yàlla digge woon ni ko danaa la ko delloo danaa ko defub yonent kon loolu mooy fii jotaay boobu toll muy jotaayu ñetteel bi kon kéemtaan gi commencé naa feeñ léegi la des mooy Moussa moomu commencé nag dund ci suufu keppaaru buur ñu fas yéene ko aaraat ci at moo xam ni buur dafa digle woon ñu rey ca buur yëgul ni kooku nag boo moytul moo nar a foq ak nguuram la cay tegu danañ ko xam ci jotaayu ñeenteel bi yal na yàlla defal leen tawfiix defal ñu ko ki nekkoon ci kàddu gi seen mbokk Mame Bokar Cissé Alfahim Sarr ci technique bi lu ci jub yàlla lu ci dëng ñu ngi leen jéggalu in uridu illa al islaaha ma stata'tu ma tawfiq illa la wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh